candidat euh, bëggoon naa xam un peu nga gisee ñàkk a teewuk mandataire Ousmane Sonko ils nous ont annoncé sa candidature en grande pompe dossier bi complet na on l'appelle le mandataire le jour J il n'est pas là oui mais ñooñu nee naa la sànq li ma la waxoon si ils nous disent a eu congrès bi rek ils amusent la galerie si ñooñu seen affaire jarul commande et votre candidat qui opte pour le vraiment ñooñu ñooñu ñooñu seen affaire jarul commande seen bopp lañ nekk seen xel yi la ñuy fooye